نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى yàlla mooy def loolu ñu wax ni xalam demoon na lay neex bu mu ko dog xajoon na fi gunge bi moom xam na kañ la xam na fan la xam na naka la waaye ñun nag lan la def yàlla ba mu yóbbu ko lan lañ defal yàlla ba mu bàyyi ñu fi on ne se pas ñuy ñaan yàlla mu woyofal suuf ci kawam jéggal ko ay bàkkaaram njaboot gi aussi tam yàlla teg ci loxo c'est important dafi bàyyi ay parental yu ndaw bu fi kenn diggee ni man maay maay damay maay damay damay naana na na gars yi jël njabootam en charge parce que moom rek la njabootam yaakaaroon waa nag yàlla mooy dogal loolu na ko yàlla xaare àjjana jéggal ko ay bàkkaaram woyofal suuf ci kawam yee que groupe Futurs Médias toppatoowul mbir yow nag ngay directeur des programme tey jii ñu bëgg nga indi si tontu. waaw mais mais xam nga lu may tontu. man du ma am yaakaar bu ma am yaakaar. ma nekk taalibe Seydina Limaamu moom ci biir dundam. mu ne nañ ko denc fii ma ñëw gunge ko fi suul ko ba pare di xalaat lu nit ki waxoon ak léegi fu mu nekk ni ay milliards mënu ko indi du dëgg nañ leen rafetal nit bu génnee àddina nañ leen ko ñaanal loolu moo am solo mais du ma dugg ci ay wane na taxaw ngeen ci mais ma ne la ay nit nee nañ que taxaw waaw mais mais waaw mais mais xam nga lu tax ma interpellé la parce que yow yaay directeur waaw mais waaw mais mais xam nga xam nga lu am solo mm-hmm. déggoo man la Ndiaye du liggéey rek moo ñu boole woon liñ doon séq ak moom man du ma toog ci médias yi di ko wax moom foofu waaw mais mais mais mais débat amul yàlla na ko yàlla xare àjjana mais man duma toog fii di per sama taa bi wax dénkaane mm. bi lan lay doon ci artistes yi ñu ndax toujours waaw mais non dama pour man du artistes yi rek nit ñi ñoo war a dajaloo mm, artistes yi ak ñëpp nit daal mm. da ngay fexe ba nga am seede yi xam nga nit bu génnee àddina seede mën na mën na nekk seede de circonstance maanaam ñu seedeel la loo xam ne ki lay seedal xam ne du dëgg sama bàmmeel laa taxaw fii ma taxaw ñemewuma fi wax lu dul dëgg mhm. njaay nit gënu ko te loolu moo am solo donc du entre artistes yi entre nit yi waxuma la jullit yi sax entre nit ñi nañ leen cultiver mhm. vraiment lu rafet looloo am solo jërëjëf merci Ndiaye xam nga moom day xaritu ñëpp Ndiaye day nit bu baax euh, di ñaan yàlla kawel aljanaam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, li ma xam ci moom mooy xam naa ne jullit la waaw yi xam naa ni yëg ci moom nii borom xol bu làpp la ndax musuma kenn musul dégg Ndiaye wax safaan kenn musul dégg njaay mu wax luy blessé doomu aadama Ndiaye kenn musul wax kenn musul dégg mu wax kàddu goo xam ni kàddu guy tuusi nit la kon tey jullit moo dem ñun nag ñëpp ñu ngi ci saxaar si te ku àgg sa gaar wàcc ku àgg sa gaar rek wàcc Ndiaye nag àgg na gaaram wàcc na mission la fi dox si woon mission ba mat na te yàlla ne mulakul mootu ñaar ngay ma dégradé la mooy nga rey ku ëram jotul ak nga rey ko heure am bul ko yéexee te bul ko gaawee laa na saatan wala yastaqdimuuna midi pile midi pile rek waaw Njaay nag amul ku ne ci réew mi ruus a seede ci moom mbaax Njaay du wax lu bon Njaay kenn mësu koo gis ci lu bon Njaay mbaax ak bégal doomu aadama yi ci loolu la nekkoon kon dañuy ñaan yàlla yeesal yërmandeem di ko jaal réew mépp nag waaw réew mépp lan koy jaal yal na ko yàlla yokk yërëm ci darajay Seydina Muhammad ñu ci lu ñu bokk jërëjëf ñu ngi leen koy pexe ku ci nekk yéene sa moroom lu baax ku ci nekk fexe ba def loo xam ne ëllëg boo fi jugee doo am jafe-jafe. bon maa ngi remercier nag télé yu bari ndax télé yu bari ñoo ngi jël acteurs culturels yi di leen fay embauché leen ñuy liggéey di yóbbu seen i kër waaye nag loolu dafa gën a war a mën a yokk ndax ñun ñun suñu bopp ñoo war a fexe ba ñun di gagné loo xam ne ci euh, maanaam Sénégal dinañ ci mën a dimbali ku nekk. kon yal nañ yàlla dimbali ba ñu juboo doon benn valoriser suñu bopp ba teraanga gi ñëpp am ñu am ko dara gën te ñaaw nekk acteur culturel déposer visa doo ko am boo xëyee loolu loo ndékkee doo ko am boo xëyee loo añee doo ko am tey bégal àddina loolu beneen affaire la président Macky Sall nag moo ngi ci li ko def li ko li ko war moo ngi koy def mais ñun ñoo war a mobiliser imposer ko suñu bopp wax ko lu ñu bëgg mu defal ñu ko dax tey ji war nañu am cité war nañu am kër war nañu ato mais oto mais la majeure partie amuñu kër amuñu oto amuñu dara loolu lépp li ko indi mooy ñàkk booloo doon benn moo tax loolu amul kon yàlla nañ yàlla dimbali ba ci tey ji entraînement wu njaay bi artistes yëpp xool ci seen bopp ñu defarwaat suñu toogaay ji mën a suñu bopp ngir am li ñëpp am ci kattanu borom bi. Ndiaye sama xarit la woon te dañu yàgg man ak moom eh, te bi ci média la ñu xamante mais du média kese après moo ñu boole. parce que tey moom nekkoon na nit koo xamante nitu ñëpp la woon Ndiaye ngeen bokk télé ngeen ñàkk bokk télé fu ngeen daje day bëgg nga bëgg moo tax mën naa ne sax feebaram bi ñu bëri ci ma lañ ko yëgee parce maa toog télé bi ne Ndiaye est très malade nañu ko bàyyi xel. danañ ko taxaw ku ko mën a ñaanal ñaanal ko ku ko mën a seeti nga seeti ko ku ko mën a aussi jàppale parce que nitu télé dafa metti surtout boo tëddee feebar même bu fekkee sa télé ñu ngi lay jàppale dafa am loo xamante ne yow danga koy soxla donc moom nekkoon nit koo xamante ne daal nit ku baax la woon nit ku am yërmande nit koo xamante ne amul xaj amul seen ñëpp la yemale woon nitu na la pour man parce que koo xamante ne fu mu taxaw ñëpp bég te saa yi la woowee jàmm rek lay dox njaay mosuma woo di wax négatif ci loo nekk naka liggéey bi mbay nii jàppale ko bàyyi ko xel di taxaw nit ñi ci zaahir ak ci baatin voilà donc moom gëm naa daal nit ku baax la woon parce que man mun naa seede loolu ci moom sama xarit la woon hormis affaire yu média dañ naan gisee di waxtaan daje ci ay bërëb di waxtaan ba ci événement bu ñu musaan daje événement sax man ak moom ñooy taxaw ba événement bi jeex bu ñu paree soit ma déposé ko wala mu déposé ma émission si bu ñëwee sama émission day mel ni këram la nekk il était très à l'aise ci sama émission donc lu ci nekk rek mooy dañu koy ñaanal yàlla yàlla buur bi xaare ko aljana te ki ñu ko jébbal tey di Seydina Limaamu xam nañu cëram ci yàlla donc xel yi dal na te di wax Sénégal yëpp nañu ko ñaanal ku ci nekk rek na ko bàyyi xel te ñaanal ko bu baax a baax. ñu lay jaale ci lu ñu ñoo ko bokk. mën a classé euh, Ndiaye tellement il était il était talentueux. c'est une grosse perte pour euh, toute la communauté artistique euh, perte bu mag la. pour notre famille GFMienne, euh, parce que c'est un des nôtres aujourd'hui qui nous quitte. Et on a cette solidarité, euh, am nañu solidarité bu nga xamante ni tey jii moo waral ñun ñëpp je pense que euh, li ko dalee direction bi ba ci suuf ñëpp ñëw nañ euh, taxawu ko gunge ko jusqu'à sa dernière demeure. Et vraiment muy loo xamante ni du ñu def lu dul ñaanal ko yàlla. Euh, branché àjjana ci bàmmeelam comme on dit en ces en de pareilles circonstances vraiment ñàkk nañ ku am solo koo xamante ni vraiment euh, mënoo woon xam ndax euh, parce qu'il avait beaucoup de talent je l'ai dit tout à l'heure il avait vraiment une palette assez large il avait plusieurs cordes à son arc Euh, il était un, un, un, quelqu'un qui pouvait euh, très bien euh, s'exercer dans, dans l'imitation parce que c'était un très grand imitateur. C'était aussi un chanteur par moment, vraiment aujourd'hui j'en parle encore avec le sourire parce qu'il nous a encore, il nous a vraiment marqué. C'est quelqu'un qui va rester dans, dans, dans, les mémoires je pense et pour très longtemps. Merci. daa jékki-jékki sëgg ma ne ko loolu sëgg nekkal mi ngi jooy moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la woon vraiment Ndiaye moom. loolu lañ ko mën a mën a seedeel di ñaan te te du ñun rek ñoo perte euh, lenn peut-être lu may lu may regretter rek mooy euh, je pense que talaam fi mu tolloon sax peut-être que sax mënoon na weesu fu mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis si mo ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il avait vraiment des projet mais depuis feebar bi tëddal ko vraiment mu nekk ci coono yu metti mais ànd ko ak gëm yàlla donc